le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane waat euh, beneen yoon di am mbégte kontaante tey euh, ba tey ci spécial korité wala korité ak célébrité ñu ci ànd ak benn artiste boo xam ni wax dëgg yàlla musique pulaar tey buñ koy wax ci Sénégal mënuñ ko bañ a tudd muy sama xarit euh, Demba gise moom la Senbuzz seet si waat ci ci ci korité bi xanaa rek monsieur gisee Demba damay amaat mbégte beneen yoon ci am ak yow jotaay di la gërëm di la baalu ak di la ziar bu baax a baax ci bisi korité bi waaw ñu ngi lay siyaar combaan ñu ngi lay siyaar di la baalu àq di la baalu àq aussi di euh, baalu ak senegal yi ak fan yi nga xam vraiment mën nañ leen a tooñ des fois te duñ ko xam mm-hmm. donc di baalu àq ñëpp di nuyu aussi sama mbokk alpulaar yëpp naan kala mbii mi wii mi wii maa mi misal mi nii ma eɗen njarlo eɗen njaafoo min yarle mi min ma mm-hmm. euh, donc di nuyu sama mbokk séeréer aussi naan leen ñu ngi leen di siyaar yéen ñëpp ko d'accord alors ñu ngi ci Korité tey bu amoon message bu bëgg jëmale ci fans yi ak soppe yi lan lay doon. waaw juste rek di di di di di euh, di leen euh, ñaaxaat ci góor góorlu hmm. rawatina ñun jeunesse bi. Hmm. ñu xam ni jeunesse moom euh, góor góorlu moo ko war liggéey jaamu yàlla. Hmm. fexe nag bañ a dépendre ci benn doomu aadama defal sa bopp liggéeyal sa bopp ngir suba nga mën a amal sa bopp c'est important. jeunesse bi yëpp laa koy wax ah, parce àdduna foofu la toll léegi quoi. loo def ci àdduna bul dépendre doomu aadama. defaral sa bopp. donc jël lépp na teg ko ci yàlla. Mhm. c'est mën nañu wax ni koor gi weer la woon boo xam ni xëy na ñu bare bare ci artistes yi dañuy pause xëy na waajaat ay journée yu demee noonu comme jeex na jamono ji lan la démb dégmal ci li nga xam ni mooy carrière am ay affiche yoo xam ne mën nga ko wax. Mm, waaw su xam koor gi moom tout le temps dañu faral di wax ne artistes dañu pause mais mm. pause bi xëy na programme yi la ñu arrêté. Hmm. mooy soirée yi ak concert et tout ça mais pause bi chaque euh, corps dañuy fekk dañu profité mën a euh, bu ñu dogee dem def ji yenn enregistrement yi concentré yenn yi ñu mën a def programme yi nga xamante ne moom la ñu war a programme pour après corps gi. Hmm. donc euh, loolu la man nag bon ku ne xam na ni que. Euh, ah boobu c'est vrai que maa ngi tànk fi Sénégal lu bari mais maa ngi tànk aussi côté bitim réew. donc euh, ñu ngi bokk ci lu ci lu bokk suñu projet. à bu ñu jógee suñu anniversaire. nii nii nii donc euh, je pense que sama programme yi ma war a démarrer waat le comment dirais-je le 6 mm-hmm. maa ngi war a dem Nouakchott le 6 incha allah rabbi ci programme bu mag a mag ma ànd ci Boups production mhm. donc di woo waa euh, euh, euh, Mauritanie yëpp donc le 6 incha allah rabbi à la case Demba Guissé mu ngi fa nekk ok le 30 bii nii mhm. maa ngi soraanoo aussi ok di ko defal association en Soubalbe yi nga xamante ni samay mbokk al al alpulaar mooy ci bolo yi mhm. dimanche bii di ñëw le 30 incha allah maa ngi foofu woo sama mbokk yëpp invité aussi Baba Mal mu war a ñëw invité aussi Abou ak képp ko xam ne mu ngi yëngu ci. pulaar kon dina dundaat bu baax a baax. la siis mm-hmm, mm-hmm. très bien. alors bëgg naa aussi en tant que célébrité xam nga ne ñu bari dañ jàpp ni dëkk bi mi ngi dund situation boo xam ni rawatina buy lu jëm ci tension politique bu amoon tey message boo bëgg jàllale jëmale ko ci homme politique yi ñi nga xam ne ñu bari jàpp ni crise politique jamono ji dafa am ci mi lan lay doon. crise politique yàgg Euh, lu jëm ci euh, opposition bi ak parti au pouvoir bi mm. coow li bëri et tout ça mm. Mm. waaye man chaque jour li may faral di wax rek duma politicien c'est euh, pas trop politique mënuma ci xuus trop mais en tant que sénégalais damay ñaan képp koo xam moom la fi yàlla teg ak ku fi yàlla war a teg suba bu ñëwee rek na bàyyi xel li nga xamante ni mooy population bi c'est important. Mm. donc di ñaan yàlla aussi que képp fu war toog rek yàlla dina ko yàlla indi mu toog fi te jàmm rek am. Mm. Mm-hmm. mu am loo xam ni daloon na la lu yàggul dara. muy bi ñu yàqee sa oto yaakaar naa deful ñaari weer wala ci lay yem tey mu dalaat ki nga xam ne mooy sa xarit sa complice Penda Guissé ñu yàqaat euh, otoom ci même condition yi ban xalaat nga am ci loolu. waaw comme ni ñu koy waxee rek. Hmm. comme daloon na ma dal na Pendo. Hmm. gis naa aussi ñeneen ñu bëri ñu mu dalaat encore. ni Fallou Benjamin daloon na ok Benjamin ak hmm. Ndiogu Afia je pense. ak ñeneen ak ñeneen. mais xam nga yooyu yooyu nit ñi def loolu sax xëy na baax na sax pour ki ñëwoon comme fekk fa dara. ah mu xam ne bu ñëwaat du fekk fi dara bu ko defee mu bàyyi yàq bi mu bàyyi toj beeg yooyu parce que amul ko benn njëriñaa ah. toj ko après dugg nga visite gisoo dara ak yooyu xam nga donc après da ngay dem ba ba à yooyu bu ñàkk fayda quoi yow yow toj oto jàmbur nga dem ba da ngay ñàkk fayda quoi toj nga ko après amoo si benn affaire te ñun ku toj suñu affaire dañuy avancer ndànk rek dem ba fii rek. Mhm. Euh, global vitrage ngeen mhm. baal ma sama mhm. xarit la. d'accord ñun ñëpp moo ñuy defaral suñuy pare-brise quoi dañuy dem rek ñu defal ñu ko. xam nga comme ni ngeen geneen képp képp koo xamante ne da nga war a defar sa sa part bi boo demee après mu defal la ko rek après nga avancer donc. du cher du metti mm-hmm. waaw yóbbu oto bi yow da nga toj rek dem te gars yi dañu xaw a des fois bàyyi xel ni que artiste dañu denc xaalis kii ban artiste moo dof di jël sa xaalis di ko denc say oto mm. amul téléphone doo fa bàyyi doo fa bàyyi dara d'accord alors mais mais est-ce que bu nekkoon vol général par exemple dinañuy cibler célébrité yi dañu ne meeku ni célébrité yi la ñuy gën a cibler jamono ji ñoom la ñuy gën a cibler di toj seeni oto yu demee noonu waaw mooy li may dañoo yaakaar ni. Hmm. dañuy fekk xaalis foofu. mais est bu doon sàcc la duñ commencé def ko phénomène di toj oto ku nekk chauffeur bi taximan bi yëpp mais lu gën a bari célébrité yi lay dal. waaw xam nga célébrité fanaan ci oto bi. waaw xam si ni fanaan ci oto bi. tout à fait dañu jàpp ne xëy na joué ngi ji di nga di nga indaale xaalis. Hmm. oto duñ ko fa duñ ko dugal ci oto euh, xaalis xaalis duñ ko dugal ci oto. donc xëy na ñu koy def mën na nekk nag aussi koo xam ne aussi xëy na neexoo ko ah. Hmm. neexoo ko neexoo ko nii donc rom mu toj ko après xam a waaye man de ba di fi may wax ak yow nii. Hmm. ku tojaat léegi sama vitre wala sama pare vitre bu subaa ma defaraat beneen. day hmm. garaaw d'accord waaw très bien alors euh, lenn luy actualité loo xam ne mën nañ wax ni concerné la ndax célébrité nga mbirum topp cas bi nga xamee ni ñu bari ci askan wi jamono ji polémique la gannaaw bi nga xamee ni jàpp nañu ñenn ci ñi nga xam ne ñoo ko doon doxal ban lecture nga am ci topp cas doxalinam ak it ñi nga xamee ni jamono ji teg nañ leen loxo. xam nga ñun jàpp ci topp topp xaw ma leen. Mhm. mais bu dee ñoom ñoom moom site yooyu ji ñu woowee lu ñu tudd nee na tuuti xaw ma leen na yoon def liggéeyam parce que ñàkk fayda. weesuwul nit ñëpp di xëy liggéey ji nga topp ci deru jàmbur bi di bind ak yu ñàkk fay du ñàkk classe yooyu nga xamante ni nit ñi sax léegi je pense que et man imagine toi même bu dee ni xaalis tax nga koy def wala wala wala ban njëriñ la la amul quoi alors waaw dem Demba gise de def na nii doxaat na kii biiral na kii yu ñàkk fayda yooyu nga xam ne après yow te xam nag lu gën a ruslu nag ñu jàpp la àdduna yëpp xam ne yow yaa doon def loolu hmm. àdduna yëpp ñu jàpp la ñëpp nga génn internet bi ñëpp ñi xam ne yow yaa doon def lii lu gën a ñàkk fayda loolu te kaay wax la nag de. Mhm. Euh, bis bi ñu leen jàppee xaw ma leen ah xaw ma ñoom la uudu ñoom. parce que mhm. wóoru ma. Mhm. waaye ñi moom site yooyu. ay nen tuuti parce que man am naa ci cas moo tax. d'accord kon mas nga si nekk victime. bien sûr ça fait même pas ça fait même pas deux mois. wax rek dem ba gisee waaw xaw ma lan nii expliqué affaire yu ñàkk fayda affaire yu jigéen ak yooyu nga xam ne xam nga xam nga. Hmm. et eh, bi ma ko gisee ki moo njëkk a envoyé dama ko ne bu ma envoyé Tivaouane si vraiment parce que nekkuma fii vraiment nekkuma si ñàkk fayda yi xam nga après affaire bi nag mu naqari ma tax mu naqari ma. Mhm. mooy dañoo bind dara leen leerul ci la personne. te ma fekk si ñàkk fayda yooyu eh, di ma wax duma leen tax tontu du ma leen may mhm. xam nga moytul ma ñaanu ku ñu tooñ. moytul ma ñaanu ku ñu tooñ. nit bu ñu tooñ. Mhm. mu ne la bàyyi naa la yàlla. non ñëpp war nañ ko moytu nga toog sa ginnaaw écran di bind di yàq la personne di ko yàq di yàq gor. Mm. mu am jabar ami doom am papa am yaay am rakk am mag am ay nawle am ay noon toog nga bind ci moom lu la neex ay dugg na fii naa nga fi xamante ken ken ken kaa la tey diw dugal tur nit ki dem nañ léegi bay bay dugal fit a euh, photo nit ki. Mm-hmm. mu amaleen benn njëriñ. est ce xam nga ne kaay wax dëgg gis nga ñooñu ñu jàpp nii bu dee ñoom la ba ilaa yow mi diini ku ñu waxal téléphone nañ ko sooraale ndax mu ngi lay enregistré koo vocal du la wóolooti mem bu ñu leen di jàppante ba dugg leen ci prison bi même ñu ne ci prison bi sax duñ leen ñeme parce que rafetul confiance kenn du leen wóolooti ci àddina. tout à fait kenn du leen wóolu ci àddina toppatoo kaay yi jàpp ni nii nii àddina kenn du leen wóolooti kenn du leen waxati secret. parce que la plupart ñoom ñooy génne sa secret yow mi nga xam ne yaay yaay ah duñ ko dugal dañ koy jox seen xarit ne ko ne ko cas bii la te pourtant yow confiance nga am ak ñoom ba partage ak ñoom. xam nga dañoo doy waar te ku ci nekk def cas ku ci nekk am nga cas bu hmm. gën a rëy boo xamante ne cas boobu sa yow la mbaa sa mag wala sa yaay wala sa papa mu ngi si biir kër gi te mosoo ko génne parce que am na ci ay célébrité yoo xam ne ñi leen jege sax ñoo leen doon jaay ñoo doon yóbbu seen xanaa déggoo ma bu ñu jógee ci lii hmm. àdduna nañu ba seen yii mhm. te wute ji liggéey lii du métier jàkkaarloog doomu aadama ji leen yàq di wax si ñoom yu bon nga ñëw toog léegi yaa ngi ni yow yow looy looy wax sa waa kër bool jàkkaarloog ñoom looy boo jàkkaarloog nit ñi loolu di lay loolu di wax parce que nag ñi leen jàpp làmbaatuwuñ de képp ku ñu jàpp ci yooyu parce que dañoo topp sa numéro série téléphone topp la topp la topp la ba xam ni kii moom bii numéro moom mu li lii juumuñu de ñu jàpp donc tey kuñ ci jàpp rek te fekk lii tax ñu jàppale na yoon def liggéeyam. kuñ ci jàpp parce li ñu yàq. Mm. tas ko si tas ko si ay sëy. Mm. tas ko si ay diggante jaxas si ay famille ah, sawaay ah, du ñuy leen noonu ah. d'accord man plainte ma woon nag. Mm. mais sama xol moo palent yàlla def. li la waxaloon lu tax mu mu mu métti la par exemple. non di loolu dañu tooñ tooñ baaxul man du ma kaakat. su ma dee kaakat ku am sama yëf nañ ko génne man sax ma dérange te nag am naa fulla gu toll ni bu fekkoon dama ne si yu ñàkk fayda yooyu ba ñu génnee ma ci bu ñu may génne Sénégal dem gis yow mm-hmm. man la maa tey ñu fekkee may def dara mm-hmm. ñu ne man maa ko def fekk man maa ko def dem gis yaa def lii man leen waa maa ko def maa tey mm-hmm. après d'accord bu ñu fekkee may def dara dem gis yaa def lii fekk maa ko def waaw léegi man leen man la maa tey maa ko def d'accord après. Mhm. loolu nëbbul yàlla duñ ko nëbb doomu aadama. c'est clair ah nañu arrêté. alors sa euh, sa de célébrité Demba euh, yan inconvénient nga jàpp ni wala moom ngay dund di jour au lendemain xam ne lii kat li ma siiw moo tax mu may arrivé. bon juste rek man li ma bañ nag su sosal nit ci affaire yoo xamante ni vraiment nekku da ngay jékki jékki dégg dégg ma des fois sax waxuma maanaam ma dégg mm. sax koo xamante ni sax bokkuñ dara ñu waxal ko dara daf may naqari bëgguma ko yàq nit nit kenn nit kenn di ko yàq yàlla moo njëkk mm-hmm. jël nit jox ko valeur mm. doomu aadama yàlla li mu sàkk yëpp doomu aadama li ci gën a fonk tout à fait léegi doomu aadama bi mu fonk noonu doomu aadama boobu mooy jëw encore di sànkaat encore yàq encore doomu aadama boobu noonu noonu boobu ana yàlla an na yàlla dafay nelaw yàlla léegi da def léegi léegi mu feeñale léegi léegi léegi képp ku gis mu doon fi weer nit rek xëy na un jour mu weeru ba ba ba àdduna yëpp xam ne weeru na tey tooñ baaxul tooñ baaxul mhm. alors euh, pour yow lan lañ ci war a mën a jàngee bu ñu demee ba société bi toll fii ay nit ñoo xam ne xëy na Sénégal rek la am créé ay groupe uniquement pour du wili pande ay nit di sosal ay man ni ñàkk am occupation rek mhm. waaw ak bon tey nga yaakaar ni bureaucrate bi liggéey bu occupé dina tal lii. yow menuisier bi wala kii ambulant par exemple. waaw yow tal nga lii. yow ambulant bi tal na lii. vraiment ah, mm. ah tailleur bi ah tal na lii. ah ñii tal ñii taluñu ko. xoolal ñi ñiy def live ci ci ci ci internet bi di jaay ay tissus ni jaay ay yére ñu jaay ay dàll ñoom taluñu kaa yi. ah taluñu ko. Mm-hmm. mais dem doomu aadama nii xam te nga bind ci moom lu garaaw. bind après publier kenken ki nga ah waaw mais kaay waa tey loo fanaane te tey ban kaa nga bi laar après après nga def ko la nga am ci benn affaire est ce xam nga est ce xam nga ñoom xamuñ sax bàkkaar boobu nu mu toll quoi moo tax tooñ la personne nga xam ne tooñ nga ko bar tuur ay rangoñ ñi mu ñaanal la yàlla ne la bàyyi naa la ak yàlla mm. ku yebu rek na ko moytu barki salaatul fatiha d'accord waaw mm. mais yàlla na yàlla def jàmm amiin yaa rabbi Demba Guissé moom la Senbuzz di am ak jotaay tey bu amee vraiment message boo xam ni euh, bëgg nga ko lancer sa communauté bopp rawatina ci li nga xam ni moom ngay def muy style bu am solo euh, lan lay doon ci sa cadre musique professionnelle waaw j'ai pas compris ñëwaatal ci question bu amoon tey motivation wala message boo xam ne bëgg nga ko lancer ñi nga xam ne ñooy pulaar yi mais aussi ci sa cadre musique par exemple loo xam ne xëy na bëgg nga ñu gën la ko yokkal wala bëgg nga ko aussi euh, ñu gën la ci jàppale ci sa cadre musique lan la waaw xam nga non man alpulaar yi euh, euh, mën naa ni euh, mën naa tuddee sama bopp ambassadeur. Mhm. parce que kuy défendre culture alpulaar la ku bëgg suma xeet la mhm. ku bëgg li ma doon laa wax naa ko keroog ci émission bi. tout à eh, yenn saa yi nit ñi du duñ maanaam buñ may sax woo ci programme dañu jàpp ne non kii alpulaar la xam naa mhm. bu ñëwee pulaar la fay woy dama ciy fier ah. eh, ni may woyee pulaar. noonu laay woy moom moom moom laay woy wolof. yàlla may na ma lool. Hmm. artiste way na fee waye waye waye ba egg niveau bu bu mën na ci àddina yaa ngi dégg yàlla may ko muy woy si ñaari langue c'est clair yaa dégg. Hmm. ok donc sant yàlla ci loolu mel noonu. Hmm. sama mbokk alpulaar comme ni may wax rek. Euh, chaque jour su ma dee def mbir ñoom ñu ciy jiitu. bu tout récemment sama single bi mu mujj génne nii mu ngi tudd Weli. Weli ku ne xam ne mooy neex na. e bi ma ko génnee alpulaar yi am nañu nu ñu nu mu nu mu melaat ci ñoom parce que loolu mooy suma loolu mooy suma rêve tout le temps may def dara rêve dara mu mu war a génn ma mm-hmm. xalaat ni pulaar laa ko way mu génn alpulaar yi kontaan ci loolu donc moo tax man tout le temps daal dama leen di wax rek ni nañu gën a jàpp parce que neɗɗo ko banndum kala ko mbawɗa dañde e aduna a wawa ko ɓuuri leñol ma mm. ko ɓuuri ɗemgal ma a wawa dañde kadi ko ɓuuri ƴiƴam ma xam naa munoo comprendre li may wax mooy lépp loo mën a am ci àdduna amoo munoo am lu gën sa xeet mm-hmm. munoo gëm sa culture mm-hmm. munoo am lu gën aussi fii. Mhm. sa dret. Mhm. te man dretu alpulaar la yor et je suis fier. macha allah mhm. alors Demba boo ñu doon nettali benn anecdote benn korité boo xam ne vraiment galéré nga ci wala korité bu la marqué la ba ngay gën a nekk nekk xele lan lan lay doon. non mosuma galéré si ay korité ak ay tabaski. parce que bi ma mës bi ma juddoo ba toll nii. Euh, avant may mënal sama bopp sama papa ma doon defal. sama yaay di ma defal. Mm. juddu ma si si famille bu sonn ba doo am mm. loo loo kii sama papa aéroport la doon liggéeyee. Euh, yoroon wax dëgg yàlla teraanga gi mu mën a yore njabootam. donc mosuma galère ci yooyu quoi. Mm-hmm. ban moo la gën a marqué ban korité nga xam ne marqué woon na la euh, benn anecdote wala histoire marqué woon la ci boobu bu bëgg partage ak ñun. korité non non non musulam musulam musuma am yooyu ay korité tabaski yëpp nii lu may marqué tout le temps rek mooy chaque année ma feete ko ak sama famille et loolu moo moo moo ma ci gën a marqué quoi très bien waaw ah. alors mhm. di la jaajëfalaat di la ñaanal ñu yàgg ko teewee ay at yu bëree bëri di kontaan ci yéen di leen wax sànq maa ngi wax sama programme fàtte sama programme it ndax tout le temps su ma jógee fii rek damay continuer dem fële ngeen baal ma rek ndaxte des fois du ñu mën a du ñu mën a du ñu mën a du ñu mën a euh, suñu biir émission la ñuy mën a jàllalee dara waaw donc il faut des fois ngeen ñu koy baal rek ñu mm. koy ñu koy prox ndool tuuti ndax dama war a dellu Paris encore. tout à fait amaat naa fa ay programme bëgguma wax dat yi nag waaye bëgguma wax aussi programme yi. parce que programme bu si nekk dañu nekk di léewatoo di négocier et je que am na fu ñu toll tey mm-hmm, mm-hmm. Euh, bu yenn yi njëkkee sotti mm-hmm. ñu dem fa am na ñu préparé Paris am ñu préparé aussi Italie a favoriser de dafa mel a bari léegi waaw bon loolu mënta ñàkk mm. xam nga des boo nekkee ci liggéey ñu bari ñu ñi nekk ci bitim réew soxla la. Mm-hmm. donc loolu it yokkute la ci sa liggéey quoi. parce que c' pas évident. Mm-hmm. nit woy na ba toll fu mu war a toll. tout à fait euh, léppam fii la koy defee. waaye ñun nag yàlla dogal nañu vraiment saa bu ñu bu rek lu si ëpp day nekk fële quoi. très bien donc sant yàlla ci loolu quoi. mbégte la woon ci am jotaay Demba di la jaajëfalaat bu baax a baax. vraiment ci euh, ñu ngi leen di siyaar di kontaan ci. Euh, seen bëf merci <laughs> dafa mel koor gi bàyyeegu la de. non dama <laughs> buzz. merci beaucoup di xam ni vraiment waxoon naa ko rek. Mm-hmm. Euh, yéen moom. jërëjëf euh, yàlla na yàlla yàlla defal leen jàmm. amiin yaa rabbi waaw ah, ndax vraiment. Mm-hmm. Euh, gars yi gis nañu liggéey bi. jërëjëf xam nañ nag. Mm-hmm. que ni que ku ngeen jàkkaar lool rek. day am mbégte. ci. interview bi parce que mm. wax ji leer na set na te it lu mu fi waxit dina saaw ba réew mi yëg ko donc yàlla na jàmm yàgg leen remercier aussi baax a baax a baax naan asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah Demba Guissé la woon ak waa Senbuzz beneen jotaay sur la chaîne des leaders ak beneen invité fii amaanillah